There are

Wow. waa télévision bi yaakaar di. RTT. maa ngi leen di nuy baax di nuyu jëwriñ ji waaye du ko jaaree sëñ Mamadou Seck mi su fekkee mooy jëwriñ bu baax la bu dul jëwriñ bi dama jotul. maa ngi nuyu ñëpp waaw di wax ni rek ñaar fukki fani koor gi li tax daje fi tey jii Serigne Ngounda Fall ñu am ko maam Saliou doomi Cheikh Ibra da cee wàccanub liggéey waaye daa dajeeg nag. mooy bis bi Cheikh Rafal jébbaloon ci Sëñ waaye sabab bi moom liy waral jotaay bi moom mooy dañ ciy ñaanal Serigne Saliou Fall doomi Cheikh Ibra muy bàyyi Serigne Cheikh Ngunda moom la ñuy wax Ngunda euh, loolu mooy sababu daje bii tey euh, su fekkente ni bii loolu doy na ndax ginnaaw loolu moom njëbbal jëfe des waaye daje tey bi daal li ko sabab sëñ Saliou Fall da ca wàcc liggéey waaye moo daje njëbbalu Cheikh Ibra Fall bi nga xam ni kon loolu day doon wenn saan ñaari picc mhm. dinañ ci màggalaale maanaam dinañ ci ñaanaale sëriñ Saliou muy mhm. doomi Cheikh mhm. màggalaale nag jëbbalu Cheikh Ibra Fall kon noonu rek la demee sëñ Saliou nag yàlla da koo tànnal bis ndax da doon ku jige Cheikh doomam waaye da koo jige woon lool ci saayir ak baatin muy jëmm joo xam ni Serigne Touba ko yar ah, moom Serigne Touba yar moog sëñ Ousmane Mbacke bàyyi sëñ Kara ay maas la ñu woon ci wàllu at ñoom ñaar ñoo bokkoon nekkandoo ci Serigne Touba Xaadimal Moustapha waaye mu doon koo xam ne làq na ngërëmal sëñ Touba bu wér làq ngërëmal way juróom Cheikh Rafal eh, looloo tax bii yàlla namee jël ruum gi mu dajale ko bisu tey bii nga xam ni ci la Cheikh Rafal jébbal woon ci la yoru mu muy koo xam ni it baayam Cheikh Ibra daana wax ni doom Saliou Samb moom buy nelaw bu ko kenn yee ndax ci nelaw yi lay faj a aaju kon kooku moom moo tax nu daje fi tey ah, di ko ci ñaanal waaye di màggalaale nag bis bi nga xam ne bii mooy njëbalu Cheikh Ibra Fall bi li ci dolliku mooy jotaay kër gi nu nekk Cheikh Ibra Fall la ko sanc 1900 waaw fii nu nekk Cheikh Ibra Fall fii la dëkkal jëkka naa dëkk feneen nag ndax boo demee fee ca école Lat Joor boo jégee kondir bi diggante école Lat Joor ak kondir bi ci sa wetu ndi booy dem dig digal boobu Cheikh Rafa la ko mel këram gaa am ba mu dëkkan ba mu nga fa tëjagut eh, am na guy gu fa nekkan guy googe guy cher lañ ko wax ba mu daanoog léegi yàggagul lool lool ku ñu wax bàyyi Modou Lo aatu moo ko daan bale dafa yendu ba ngoon mu ñibbi si Madina Fall loolu moom fekk nañ ko fi foofu la Cheikh Ibra jëkk a dëkk waaye daa am lu ko fa tax a tuxoo la ko fa tax nag mu ne su ko wax ci rajo waaye fa la daal dina ah, doom maa ngay dem ca tànk ba muy fii bi mu sañcee fii daara wax ni ah doom sama kër gi de yëngu bi daa bari lool yëngu bi nag nekkate boobu chemin de fer lay lay junj kon Cheikh Ibrahima foofu fii la fii la mujj dëkk eh, dëkk fi nag ba 1914 Serigne Touba toxale ko fi mu dem Njaaréem ki nga xam ni moo na fi tax a daje muy Serigne Cheikh Ngounda kenn la ci sëti Cheikh Ibrahima Fall yi naa ci ay magam yu baax bokk na ca ku ñu wax Serigne am na koy daana wax ni Cheikh Ngounda de ku mu jub ci nun magam ñi nga defaraat sa toogaay sëñ Modou Aminté daana wax ne xaw ma manees na koo mag waaye xaw ma ko gën manees na koo mag ci yoon wi waaye di su ko ci gën kooku mooy Serigne Cheikh Ngounda di ko baax koo xam ne làq na ngërëm yu bari ba fi Serigne di jóg ba fi ba fi way juróom jógee ak léegi di Serigne Saliou daa jox boppam njabootu Cheikh Rafal waaye nag bi nga xam ne doomi Cheikh jeex nañu bi sëñ bi Sakor demee nag ca la dem sëñ te lépp dem googu mu dem ci sëñ Blaat sëñ sëñ Blaat ji joxe ndigal ba mu jógee ci sëñ Blaat mu dem ci sëriñ Abdou Khadir jaar ci sëñ Saliou noonu daal la ko toppee ba mujj nag ci xilaafa ak sëriñ seex ci sëriñ Cheikh Jëmb ci la mujj nag ñëwee nag ci ay magam muy sëriñ seex Jëmb doon jëwriñam ju am solo taxaw ko lool ba ci sëñ am di Modou Mbende mii nga xam ni moo bàyyee ma woon moom Cheikh Ibrahima boole woon seen ñaari baay yi kon daal su fekkee ne bii am na beneen laaj booy laaj. wàcc foofu kàddu fukki gi Cheikh Ibrahima gisee woon ak sëriñ bi nga ñëw ñu ci tuuti waaw gise gi nag leeree na ci Cheikh Sidi Makhtar Cheikh Sidi Makhtar nee na ñeenti fan ci weeru koor la sëriñ Touba gisee Cheikh Ibrahima waxtaan wa di wéy waxtaan wi di wéy ci nii lañu àndee ak yow nii laay àndee yow sëñ Tuubaa naan ko nii laay àndee yow ko nii laay àndee yow ba ca ñaar fukki fan yi koor bi loolu Cheikh Sidi Mokhtar moo ko wax daal di wax ni Cheikh kenn du ko xam te toogu ci lal bi sëñ Tuubaa bi mu ñëwee ci xilaafa gi la wax loolu léegi ñëpp ak bëgg lan yor waaye kenn xamu ko ci ku dul kii sëñ Tuubaa rek moo xam Cheikh Ibra ah, lam jëlee naa ci lammiñu Cheikh Mamadou Muntaxa mu ni dafa ñëw siyaar Sëriñ Abdou sëñ laata nga toog nële beru moom cëpp nee na ma dànd ko mënuma àgg moom ndax am ndigal nee na ba yàgg sëñ laat moo ne ñokkate fa mu toogoon di ci fekk si bi mu ñëwee toog tuuti daal ni ma Muntaxa daa mel ni daa am lu nit sa xel mi de mu ne ko balay si man de li ma toog yëpp Cheikh Rafaal rek laay xalaat mu ne ko waa ji ne Muntaxa Cheikh Ibra Fall moom yi mboolem mu di yëpp bu ñu dajale woon seen passeport teg ko ci balance passeport bi Cheikh Ibra Fall wat leen loolu ci la muy suñu ndam leen te nee na seen laata ko ko te xam nga ni tay ko dugg kon Cheikh Ibra kon kenn la Cheikh Sidi Maxtaan nag nee na bi mu gisee sëñ bi ba noppi ñuy waxtaan ba ca ñaar fukki fan lañ jubboo te lañ jubboo ñu suñuy pacte la ñu suñuy Cheikh Ibra ànd ci sëñ Tuubaa ànd mu jox ko loxo boo demee ci minul baax xadim waaw ànd bi waaw li ñu ñii laay àndee yow ñii laay àndee yow sëñ Tuubaa naan ko nii la nii la ba moom ba mu fukki fan ak nangam loolu Cheikh Sidi Mokhtar moo ko wax nee nañ ne ci lañ juboo war a mën a ànd daal di ànd Cheikh Mamadou Cheikh ba Cheikh Mamadou Bachir neen ata alla ya muridun tabir Cheikh Ibrahima Fall وهو من فقدان النية تلو شيخه قال لي إن أول ما عقدت علي شيخ ربي لو أني من الأثل والبيئة قلت لو إني لم يغني من بيت إلى طلب شيخ موصل أجد من آله نور حق تنبه ما معنى سلمات الخلق وتنجلي بآيات الحق لو لم أجد أحدا ممن عزي صفته إلى قبل ولا بلغ شق نيتي فيه أملي boo demee ci mënoo baaxal ni ko doon sëñ Basiru nee na nettali na ma ñu ne ko ku la nettali mu ne mu ngi tudd sëñ Tuubaa bu mag ba ñu ne ko kan la mu ne Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne parce que ba daa rëy ba xaw a niroog bu bu sëñ Tuubaa sëriñam nee na wax na ma ne ma keroog ba ma gisee tedd gi la ma jëkk a waxanteeg ku tedd bala maa jaayanteeg moom dama ko ni ba may génne sama kër sëriñ bu egg ci yàlla man maa eggale ci ko sëriñ boobu may seet su ma ko gisee danaa fekk leeru dëgg boo xam ne bi booy liggéey boo koy liggéeyal sa aw ñàkk dafa teew fu ñàkk ji ne leer dugg fa bàkkaaroo tafa daan ne ko sëriñ boobu may wër. danaa fa fekk ayatul xaq danaa fa fekk kéemaani kéemaani yu dëgg kéemaani aji dëgg ji mu yàlla sëriñ boobu may seet bu ma wëral àdduna ba ma daj gisuma ko waaye ma gis bàmmeelam sama dëgg ak sama pas-pas ak ma may ma sukkandiku ca bàmmeel ba di ko liggéey ba àgg ci yàlla nee na sëriñ Tuubaa dugg ma loxoom boo demee ca mbirum baax xadim boo demee ko defee sëriñ bi ni ko nangali sa pas-pas ak sama pas ndax kat rasulullah nii may xëñtu su ma waroon adduna ba mu dëkk aw ma ci man benn tegtal waaye wóor na may asamaan si ak biddi tiimal na ko sama bëggu ak sama bëgg sama papa dina ma may ma sukkandiku ca ba li ma bëgg ci rasulullah man ko li ma bëgg ci ne rek asam asam kon loolu bokk na ci gise gi su fekkee bii doy na mu wàcc fa suñu kàddu boobu laaj nga laaj. jërëjëf wax ne Baye Fall ndax. Serigne Mountakha jël jël lu day na Touba ak taxawaay bi dénkoon kaay takk der mu jël ko dénk ko Baye Fall pas-pas boobu lan lay wax nañ sax mag wax nañ sax daana wax ne ah yoon wi kat may ñag bi dara nag mënu la mënta ruur tool bi lu dul lu juddoo ci biir tool bi waaye dara du jóge ci àll ba jéggi ñag bi dugg ci tool bi lu nekk ci biir tool bi lu yàq rek ñoo ko yàq. ndax mi naan wax naan ndax li neex sëñ bi baa ngeen Touba. waaw loolu sëñ bi sax wax na ko. waaw ana wax naan jige ju sori ak sori ju jige. mën ngaa nekk ci Allemagne nekk Touba mën ngaa nekk ci biir Touba te te bokkoo ci waaw kon pas-pas pas-pas boobu le mooy law nag ba fi mu ne. Baye Fall yëpp yi dëgg yu seen baay yi àndoon ak Cheikh ba doon nañ waaye sët yi Cheikh Fall yi doon seen baay seen baay seen seen baay ba Cheikh Ibrahima Fall parce que moom mooy dox ba fi mu ne boo xoolee ni ñuy dox xam ne parce bi dara day yokk waaye wàññi ko. parce que dem na ba yegg ci ndogu yi ñuy fàggu àjjuma yi da koy da koy dugal xalif général. xalif général bi bis pour yàlla bis bu yàlla sakk. ma mm-hmm. toog ay ndogu kër yi ci des. ñii di togg bii bis ñii di togg biis boo demee kër Serigne Wassane Serigne am na xadi ajjuma lay togg waaye saa yu toggee nga xam ne ñëpp toggul waaw pas-pas boobu mooy dox ba liggéey bi bu koor gi jotee daal loo am dina ko jël loo amul te am lu mën a jaay nga def ko ci dañ ko dañ ko jaay def ko ci. pas-pas lañ ci am pas-pas boobu lañ moom la ñuy moom la ñuy def pas-pas boobu nag mooy bisam laa waxoon ne rek bu ñu dajalee pas-pasu murid yi teg ci balance ba jël pas-pasu Cheikh nga teg ci balance pas-pasu Cheikh la fàllee wat loolu mooy dox ba mu yëngu dañ koy doon moom du fi jóg. yan mooy ay ndénkaane ci ci ci yoon wi rawatina sama yoonu murid rek waaye pas a am ah, wax ni ak Baay Faal du du du taxaw du kese ak Baay Faal jikko la. jikko jooju nag mooy dañuy gëm sëñ Touba tegu ci siraatal mustaqim nangoo liggéey di jaamu yàlla gëm sëñ Touba loo am jox ko loolu mooy doxeenu Baay Faal waaye saqal kalar yor yetti mbubb yu bokkut di fanaan ci tolox yi eggul naan naan Seex Ibra di tox yàmba ñooñu ay rastaman lañ yëruñu ngañ dinaay wax ni ngañ ak rasta bokkut ngañ mooy ñi wax laa ilaaha illallaah te sell du ñu tox du ñu naan du ñu du ñu jaxasoo jigéen ju gëm sëñ Tuubaa tegu ci saraatam moo tax di liggéey di jox sëñ Tuubaa di jaamu yàlla loo ñooñu ñoo di Baay Faal waaye ñi ci def moom seen bopp rek lañ fa nekkal pas-pas boobu daal moom la ñuy doxee moom la sëñ Cheikh Ngounda mi ci loolu la ne suñ ne lu ma am jox ko sëñ Tuubaa waaye itam lu ma joxee rek amaat lu gëpp sëñ jox jox yàlla moom noonu la mel saa yoo joxee yàlla tey léegi nga amaat lu gëpp waaw sa kàddu waaw xam naa di sant bu baax. di wax ne mboolem ku gëm Cheikh Ibra gëm Cheikh Ibra nag li ñu jébbalu ci Baye Fall ñoo gëm Cheikh Ibra ñu nekk ci yoonu murid dëgg ñëpp gëm nañ Cheikh Ibra su ko defee li nu war mooy ni ma ko waxee def yàlla bu mu gis lu muy tere loolu mooy mooy doxe li nga xam ne moom laa mu war a doxe Baye Fall ak ku ñu Baye Fall te bokk ci yoonu murid ñëpp ci yëpp ku dëggal rek Baye Fall waaw képp ku dëggal Baye Fall kon ñoo ngi woo ñëpp ci njub ñoo ngi woo ñëpp ci jëm sëriñ bi ñoo ngi woo ñëpp ci bàyyi bon bàyyi ko bon bàyyi fu bon sax ci li neex suñ li neex suñ waxoon naa ko mooy li neex yàlla mooy li neex rasul bi di sant waa télévision bi ci ndigalu sëriñ bi di ñaan ngeen dem ba amee rajo waaw ngeen dem ba télévision bi nekk international nekk na ko sax ndax léegi euh, réseaux sociaux yi tax na fépp lay waaye def nag ba nga xam daal su ngeen toogee ci plateau wax ku taal sa télé man leen a jàpp ak foo mën a ne ci àdduna bi yàlla na ko yàlla def ñoo ngi lay gërëm baax sëñ Mamadou Seck di gërëm ñu nga àndal di gërëm personnel bi yëpp bàyyiwuñu kenn asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu